amul lenn loo xamante ne ni état Sénégal jagleel na ko yëmbal chaque instant rek ñun dañuy toppe yëmbal ko xam yëmbal xam ne ndóol gi mu ngi fi xale yi liggéeyuñu euh, jigéen ñi amul benn financement dem nañ si état dem nañ ci état waxtaan ak président de la république mu wax nu yu am solo dig nu yu am solo mais ba léegi lam ñu dig ñu ngi taxaw di ko xaar gis gi si maître xanaa jox nañu ñaari oto si ko sécurité mais avec avant loolu waxoon nañu den côté côté santé bi daf ciy dox waxoon nañu si côté euh, financement yi daf ciy dox waxoon nañ si côté. Euh, tali bi daf ciy dox ba léegi loolu dara feeñagu ci ñu miin mooy élection jot ñu ñëw seet ñu nax nu ñu voté leen ñu dem seen yoon mais léegi nag defe naa askan yeew nañu xam naan bu baax ni ku am àndul ak ñun avant élection yi duñ ànd ak yow ci benn ci ci benn côté moo ñu taxaw ngir wan askan wi yëpp na leen yëmbal ba woon ci naxaate yëmbal ba woon ci dem di tàccu léegi di yëmbal bii parce que seen ay xale màgg nañu seen ay kilifa màgg nañu pour ànd ak ñoom ci ci combattre euh, askan wi ci côté :fra ñàkk ci côté :fra wér gi ci côté lépp